Michel daabo ñoom Jamila Diop madame Ndiaye ñoom Koña di euh, Koña euh, cousine la ci Jamila di tamit ñoom Diarra de la part de Toubab le noble ak euh, ki nga xam ne nag moom mooy. waa dibiteri Malick Gakou yëpp ñu ngi leen di di tamit tubaab la grand noble doomu ndeyu El Hadj Awa Bilal di tamit jigéenu Malick jigéenu ki nga xam ne mooy Mimi ture di càmminu di jigéenu Mimi Touré waaye tamit di càmmin ci ki nga xam ne mooy Aminata Kanté maire Sam Notaire nuyu leen bu baax Maymouna Bodian xaritu laar yi nekk foofu nag euh, ca euh, Ouest Foire nuyu leen benn Fall euh, corniche ñaari boulangerie Serigne Cheikhouna Mbacké sëdd ci xalif général kullu murit sëñ Sidi Maktar Mbacké yàlla na fi yàlla wéral ko tamit dëgëral taxawaayam waaye Cheikhouna Mbacké tamit ziar nañ ko ziar bu wër di sëtu xalif général kullu murit di nuyu une fois encore waa Guédiawaye yëpp de la part de l'homme noble ñu naan ko tubaab doomu nday Kouthia le noble du chef de cabinet Aminata Kanté maire euh, Sam Notaire nuyu nañu ko bu baax di nuyu tamit Ñanga Mbay doomu Ñanga Mbay di doomu euh, alaaji suñu papa alaaji Mansour Mbay di nuyu tamit Aram Jéen Wañ nekk ca Baobab ak maman Ouley Yahya Diop ca euh, Sicap Baobab nuyu tamit bu baax madame Jean madame Bart madame Barthéline ak ki nga xam ne nag suñu papa bi nga xam ne nag mooy Jean Paul Diaz nuyu nañu ko bu baax ak soxnam di madame Jean Paul Diaz ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ci Sicap Baobab Alioune Badara Diouf di jo ñoom Ngone Jaara Ngom bu Farba Aminata Ndiaye ñoom Mame Binta ca Baobab ñoom ñu ni leen di nuyu tamit Fatou Ndiaye depuis Cambérène dëkkoon ca Ndar bu ndaw Kaolack actuellement ca Cambérène en face jumaa ji ziar nañ ko ziar bu wër bu amul benn werante nuyu nañ tamit Cheikh Omar Tall nekk foofu nag euh, Serigne Cheikh Omar Tall nekk ca Sokone di suñu xarit di am mbégte contentement bu mag ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan war a ngay déglu émission Kouthia Show Serigne Sang Ndiaye ñu koy nuyu di taalibe Serigne Saliou nekk nag ca Paya yi ziar tamit Serigne Modou Ladiane borom jaasi bi dëkk ca Passé Asseni Euh, mbaaru Serigne Mourtala Mbacke di nit ku yàlla baaxal yal na ko yàlla defal jàmm di nit ku dëggu tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram di am mbégte contentement ci kilifa diine yi nga xam ne yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di tudd nuyu nañ bu baax ki nga xam ne tamit moom mooy El Hadji di sama xarit di nuyu tamit bu nekk ca APEX yal ko yàlla defal jàmm Mbodj APEX daal nit ku yàlla baaxal la waaye Khadija ñaa ñu naan ko euh, Khadija dëkk ca unité 8 ay toute la population de unité 8 ñu ngi di ziar ziar bu di am mbégte contentement tamit euh, ci suñu papa alaaji cerno sama sa mourabi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak alaaji cerno bokar alpha ba ca war a fondé alaaji cerno nuuru taal ci sacré cœur ak alaaji cerno abdourahmane bari ca bogol waxtu bi nga xam yéen mu ngi ci sénégal di ko nuyu bu baax ci dakar nuyu tamit alaaji cerno hamdu aaw xalif bu celaaw sama xarit la ak ousmane ndiaye alaaji ousmane ndiaye wàllu yàlla ca euh, HLM Angle Mousse di nit ku ak euh, wax nag bi euh, wax dëgg yàlla li mu dalal Mati sax moo tax ko may chance mais sinon ñëpp sant ñëpp nag delluwaat di sëriñ sant bu baax ki nga xam ne nag mooy Thierno Amadou Ba xalif bu Bambilor ak sëriñ Alaaji Seydou Sow ñoom Sérif Ahmed Tidiane ay dara ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak yaram Pierre nag fi ñuy dem moom mooy seeti euh, Amath Dansokho bi nga xam ne Ablaye Wade nee na ko carrément man du ma wax ak yow waaye am euh, Macky Sall nee na ko yow laa jox mission pour ngay waxante ak Ablaye Wade bés que ni tey mission boobu nan la ko ki nga xam ne mooy Amath Dansokho euh, jëlee ak nan la ko jëfee Tigo Cash moo leen mayoon seen émission Kouthia Show ànd ceeg euh, ñi nga xam ne ñooy Patricia Reyner di diw bu baax ci li nga xam ne moom mooy Euh, ci yaram xale mag ak ndaw bi mooy familial bi kon nag euh, ni ñuy def rek moom mooy TFM en fait boo bëggee gagné ci xaalis bu bari bi envoyé le 26 444 dina mën a tax nga gagné ay bon yu am solo 300 000 francs yi nag xam naa suba dinaa ci am lu leer su ko defee nag ñu euh, voilà. xoto xoto boole xoto ma ñamaa ñooni émotion rek moo ma jàpp du dara lu dul émotion maa ngi am mbégte ak contentement bu mag gune ke Macky daf ma sas Macky sas na ma sas bu rey ndax xool na ñépp ne ma yow yow laay bàyyi ak Ablaye yow rek laay bàyyi ak Ablaye loolu ndam la ndax xam na ne Ablaye man rek la ragal maa ko wax moo tax keroog bu mu ñëwulee ci francophone bi ma ne ko moo xam ndax Ablaye bu ñëwulee ak bu ñëwee yépp ñun woowu ñu ko tey woowu ñu ko mag Macky ko sagar rek ne ko ñëwal waaye boobu ba léegi mu ngi mel ne ku départ waaye moo xam léegi nag duma ci nekk di euh, euh, werante jëm suba dama bëgg nga aal ma kol euh, aal ma kol ma wan leen kol aal leen ma kol rek ma wan yéen ñëpp maa ngi leen di wax waa Sénégal kilifa diina yëpp maa di leen xamal ne am naa mbégte jërëjëf Macky Sall li mu def dafa rëy bàyyi fi Abdoulaye Bathily bàyyi fi Moustapha bàyyi fi ñeneen na ma yow yaay mission commande tey rek Abdoulaye xam ne du doon lu ndaw ni xoto xoto boole xoto ma ñamaa ni xoto waaye xoto ba xoto ba ñu maa ñoo ni xoto ma leen di xamal ne dartaña laa tudd parce que ne tey deele ma wooye dartaña nee leen d'Artagnan Aramis pour tous Aramis et celui s'en va là sans les roi d'Artagnan Aramis à tout Aramis et celui s'en va là sans les roi toggal ma ceeb bu am xooño koo xamul euh, épée xam lu épée xale yu ndaw yi xam nañu épée d'Artagnan épée rek lay def te parce que ne tey mission lañ ma jox sama bant bii te Ablaye bant lay yor ni man day naqasaale boo ko bàyyee mu daan ñun ñëpp ay ñun ñëpp bant ñu yóbbaale li mu tuuti nii yëpp moo téye suñu poids Ablaye day naqasaale waaye ñun benn lañ yor moom ñaar la waroon yor ndax ñun ñëpp moo ñu mag moo tax ma ne bés que ne tey may darta ñaar fii la ko doon roof def nii xota ma ne xoto xota boole xota ma ñamaa ñoo ni xoto ci xota boole xota ma ñamaa ñoo ni xoto waaw xota boole daan ko du doon poste bu ndaw na man utal poste bu baax ndax lii nga xam ne moom lay def du lu ndaw ab laay xeex ak moom du du xeexu caaxaan lii may def yëpp damay entraîné ñu bari dañ may laaj lan mooy xoto xoto mooy ku am fit xoto boole mooy ku ñeme xoto ma ñamaa mooy deete waaw ñun saraxu boo demee Kédougou dañ la koy wax dañ la xoto xota boole xota ma ñamaa ñooni xota pour war na Ablaay na xale la tey laay fett ba Sénégal xam ne danse xodu mag ay na xoto na boole na ñamaa ñoo bu dara kan moo am doole moo doon wax góor gi moo bari doole léegi kan moo bari doole daa soxoo yaa ko ëpp doole daa soxoo yaa ko ëpp doole daa soxoo hotama ñama ñooni hot